mbokk yi julli ci na ba nu sant yàlla julli ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp di baalu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam te di fàttali suñu bopp di fàttali bokki jullit yëpp nu àndandoo waat bokk dugg ci daaira bi ñuy wax al muttaquun wala daairatul muttaqiin ndax kat ragal yàlla suñu boroom wax na ci alquran ne ku ko def saa su nekk yàlla def koy sàkkal fu muy daal di génn ci mbir ak lu mbir ma jafe-jafe benn ñaareel ba it ragal yàlla lépp lum jublu bu demee ba tàmbali caa ñàkk yaakaar ndax jafe-jafe yum cay jànkonteel yàlla dana ko ubbil bunt yum jàpp yum jàppandee ci moom lool ba mu bett ko ñaar ñetteel ba mooy nee na ku ragal yàlla mboolem yi fi doon waxtaane muy ji weesu ci jëw ak ya weesu woon yépp te jikko ak i melo yu yàqal nit digganteem ak i bokki jaamam waaye di ko topp ba yomal xiyaama ñu di ko toppanteeg ñoom yàlla nee na ku ragal yàlla saa su nekk yàlla daf koy faral ay bakkaaram di ko fulal ay yool gannaaw bu mu tuubee yàlla nañu ko yàlla jàppandal doon nañ waxtaan ci jenn jàngoro joo xam ne waxoon nañ keroog ne néew na lool nit dem ci ab jataay wala ndaje ba jóge fa te wàlluñu ko ku fa yàlla nañ ci yàlla musal waaye tey dañuy fàttalente it ci menn mbokkam moo xam ne moom euh, li ci suñu boroom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci boroom xam-xam yi wax ko ci sëriñ bu mag bi wax ko ci daanaka bañ doon waxtaanee moo ko tànne muy jëw jëw ak la ca nekk lépp ci lu ci nit mën a jële ba bu ëllëgee mu teg ko ci yoon wu koy daal jëmee ci ay tànk-tànk rambaaj moo yées moo gën a jëw ndax moom euh, bokkut ak wax ci nit ki gannaawam yam ca benn mu wax comme ni ko wax jàngale woon ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax tudd nit fu nekkut mooy jëw ko ñu ne ko waaw su fekkee lañ koy jëwee mu ngi ci moom nag mu ne loolu nag mooy jëw dëgg su fekkee nag li ngeen di wax dara laalu ko ca loolu moo tudd duural ko sosal ko sos waaye tey tom bi ñuy waxtaane mooy rambaaj rambaaj nag mbokkum jëw la waaye moom ni ko waroom xam-xam yi jàngale mooy toog ci ab jataay ay nit wax fa lañ fay wax defe ni foofu la yam mu dem nettali ji ko waaye du yam ci nettali ko kese waaye wax ji su fekkee penku la jëmoon daf koy walbati mu jëm sow ba nga xam ne kañ doon wax ci moom lu baax ngir soññee ko ay moroomam ya fa nekkoon moom su demee dafay wëlbati wax ja ba ñam koy wëlbati fa seen kanam buñ gisee kooku sax duñ ko bëgg a jox loxo far wala may rambaaj yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallama te fekk lam ci jul mooy yàq diggante diw ak diw rek te fekk lam ci jul mooy yàq diggante diw ak diw wala bëti na wax ja waaye jubluwaay ba dëgg mooy fexe ba diw du ci jox loxo diw mooy safaanu ni mag ñi daan defaree ab diggante saa bu ab diggante masaa naqari ba naqari ba kenn ci ñoom ñaar duutu jublu fa sa moroom jublu ku jëkk génn ci mbedd boo ko séenee wàññiku ku xamalaa di bokk moom kër gu ngeen nekk waxuma laa di bokk moom benn néeg waxuma laa di bokk ndab di lekk mag ñi suñ ko masaan bëgg a lijjanti dañ naan dañu dem ca kenn ka ne diw day waxtaan na ma moom waaye lam defoon ci sa diggante moom di rëcc na ko rëcc goo xam ne lu dul jox la jox la moo ak bokk wax ak yi demee noonu ba kooka wàcc ba nangoo dem gisee kooka ñu soog ko dem ca ka ca des wax ko la ñu waxoon kee ba ñun ñëpp ñu nangoo daje ba daje fi barab waaye ràmbaaj nag danaan diw ba moo fa demee taraanga ji ma taral yàlla na ko yàlla fay dus naa nu ma ko koy faye waaye rambaaj kat su demee da ko naan yaa mën a wàcc sa loxo diw mi nga fi doon ganale barki démb de lam teg dara bi man duma la ko wax ndax du ma dugg ci ab diggante waaye nee na waxul dara waaye fa ko dalal képp xam nga ne yow ku la fa dalal naroon dalal nga la daal cay tege cay tege loolu mooy rambaaj yonent bi nag sallallahu alayhi wa mas naa toog gaa yi wër ko daara la mu ne euh, ndax bëgg ngeen ma wax leen yéen ñi ki yées ci yéen ki yées ci nit ñi la ki yées ci nit ñi ndax bëgg ngeen ma wax leen ko ñu ne ko loolu moo ñu fi tax a ñëw ndax suñ ko xamee moytu ko ba mën a bokk ci ñu gën ci nit ñi mu ne ki yées ci yéen doonut mën naa bañ a doon ki gën a nay mën naa bañ doon ki gën a ragal mën naa bañ a doon ki gën a bëgg lekk wala ki gën a tayal waaye ki yées ci yéen mooy koo xam ne saa bu solee aw daal dàllam rambaaj moo ko tax a jóg waaye yàq ab diggante moo ko tax a jóg waaye xajamal lu setoon ku setoon wicc moo ko tax a jóg danuñ ca lu mu sot mu dellu waxaat ne li ñu tuddee riba ci commerce lañ ko gën a xam jaay ak jënd ak yaxantu ak i bokkam waaye nee na riba ba ca gën féete kaw mooy euh, ki nga xam ne yàlla dafa daganal ci moom mu lekk xar ak nag ak gëléem ak i bokkam mu ne ko fa ñukk di leen lekk ba rekk sëggaat nag ci deri jullit yi di ŋañ-ŋañi di yàq ay diggante ba kenn du mu yow safara bokk yi loolu ñi ko yàlla na too euh, boroom xam-xam yépp juboo nañ ci ne baat bi ñu jëfandikoo naan diw danger la danger la danger mooy loo xam ne kenn bëggu caa dugg kenn bëggu ñu dugal la ci doo dugg bëgg ku la ci dugal loolu mooy danger xatiir bakkan xaj na ca laago xaj ca ñàkk ca alal xaj ca kenn bëggu caa dugg waxuma laa ñu dugal ci dugg euh, kon rambaaj ab rambaaj danger dangereux ndax lan day fekk diggante bu set bi weex tàll mu dugg ci couleur ko kenn dootu ko mën a xool loolu dana ko def ci diggante ay bokk dana ko def ci diggante sëriñ bi ak taalibe bi dana ko def ci diggante taalibe bi ak sëriñ bi waaye dana fekk ñaar ñoo xam ne du ñu ëpp taalibe ak sëriñ ak kenn lu dul dañoo soppante te yàlla dong tax mu dox seen diggante bañ doon noon yoo xam ne yii ak noonoo du féete kaw seen noonoo ba léegi nag loolu dafa bokk ci li yàlla di wax ci alquran naan tudde ko fasaad fasaad bi ñu ko dee jëfandikoo ci làmmi jamonoy tey mooy li ñuy tuddee réew mu yàqu rek li ñuy wax corruption mooy baatu fasaad corruption mooy ger lekk ger lekk ger nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon wépp yaram woo xam ne ger bokk na ca la ko suuxat ba waa ji foo ko gis mu ne fuut leer nañ nee na suux yooyee moom sawar la jëm te buy dem mënu faa bàyyi jëmm ja sammaawuna lil kadibi ak lis suxt alquran waaye fasaad ger dugg na ca ak i bokkam ñoom ñépp waaye rambaaj ma nga ci biir moom moom ku ñëw fa koy fekk fa koy fekk ku dem fa koy bàyyi yàlla nee na ñooña moom ku dugg ci dayra fasaad mufsidiin yi wala mufsiduuna euh, ku yàlla soppadee nga noonee ku yàlla bañ a nga noonee ku sopp safaanam mooy bañ yàlla ñu ci yàlla musal <clears throat> ana lu leen ñor ba ñu nekkee mufsidun ñi ngi lor jullit te yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy taxaw guddi ak bëccëg di teg ay lor ci diggante jullit jullit góor ak góor ak jigéen lay doon yëguñu tiñu tiñuñu lu may dañuy xëy daal di nuyoo kenn du leen fay kenn duutu leen lépp kenn duutu leen abal kenn duutu leen abbu dagg leen wacc yàlla nee na ci alquran ku fexe ba ji diggante jullit yi loolu na ko wóor ne yanu na benn aw dóor dañ ko koy topp bu ëllëgee bu mu koy yanni ko ci nit waaye yanu na bàkkaar bu leer nañ bakkar baat bi suñu boroom jëfandikoo ci ismun mubiin nag mubiin ak azim ak karim lu ko yàlla jëfandikoo loola nit mënu koo takk ci ab rëyaay siixa boobu kon ñooñu dañuy mel ne bu fekkee ci nit ñëpp dañ leen def jenn jëmm ñi doon loxo ba loxo boobee loxo bu am tooke la ci jëmm nit ki la ci gën mooy tàggaleeg moom léeg-léeg nit am wéradi goo xam ne bu ñu ko yóbboo ci fajkat dañ naan li gën moo ñu dagg loxo bi wala ñu dagg tànk bi yàlla ñu ci yàlla musal koo xam ne ab rambaaj nag ci biir askan wi dafa mel ne loxo bu tàmbalee fënax te cat la jëm ci kaw la ci gën mooy dagg ndax moom suñ ko dal di dagg dana dagg diggante yépp dana tax ku gis sa moroom bëcc ngel ko ndax day wax ca kaw di wax ci suuf yore melokaanu kàkkatar kàkkatar bu duggee ci garab bu yéegee ci ko garab gu tooy xëpp daal di yor daal di wert ni moom su dee dox su ñax mu dee mu daal di mel daal di mboq mel ni ñax ma lu mu dugg rek mel ni moom loolu nag ab jullit dina mel waaye day mel ni it jaay na ñàngoor ji buus yoo xam ne ku jàkkaarloog moom bu ko buusoo bu dalee ci bëtam mu gumba te bu ko màttee kenn mënu ko mënu ko lañ ko misaale moo tax lislaam ne jàngal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñuy ànde ak nit ñi bokk na ca képp koo xam ne danga ko gis lu mu wax waat ana daal yi tegoon fii du na gisuma ko ni ko ñëpp waxe waaye day waat ne gisul daal koo xam ne ana dal lee newul fii donc ku ne na man de seetluwuma ko moom mu waat amu leen weccata kenn dim kenn yurut li dimbale ma ci waaye moom su naan yuruma ko day waat boole ca mooy kulla xallaafin mahin lu ko jar ak lu ko jërul lépp mu ne waat na ne yurut wecca jàpp na ne kon li muy wax duñ ko gëm su waxtu duñ ko gëm yonent yàlla noonu yonent bi ko ku noonu de ko moytu ndax mën naa wax fii di wax fee waaye hammaasin masha masha in bi namim hammaas danaa ci dikk waaye masha in bi mooy koo xam ne lii gone yi xewal léegi naan loo wax ñu ne man ci nangam laay dox mooy koo xam ne ci rambaaj rek lay dox yàlla nee na moo yeneen bi ku mel noonu dee ko moytu waxuma la di topp ci ay xalaatam ak ay weranteem ak jataayam loo ci mën nanga ko moytu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon boog te yàlla nee woon du waxe ba kanam ab rambaaj du dugg aljanna ci benn riwaaya na maam am beneen riwaaya ab xataat dugg aljanna nammaam ak xattaat nag leen wuutale mooy nammaam rambaaj mooy koo xam ne day tuxalee fii ay wax ci niñ ko waxee woon fekkee na lépp dara ko ci te ñu xel lañu doon fa leen ñu neex xel daanaka baat boo tàmbali mën nañ la ko àggaleel dañuy firi gént daanaka gént boroom dañ ko koy firi dañ gént nga nangam seenu ñoom mën na caa àgg kon rambaaj mooy koo xam day jëlee fii ay wax te nañ ko waxee woon bu dégg lépp lu ci diw wax mu xam ko waaye nag su demee fam ko soxlaa daf koy wëlbati euh, bokk def ko li ñuy wax jalgati xibaar nga xam ne tur yi ñuy wooyee ñi ñiy toppandoo sax dañ koy soppi waaye soo déggee kay wax nga xam ne diw lañ ci toppandoo loolu tam mat naa seetaat baax a baax ay ree lañ koy def waaye lu mat a bàyyi xel ndax danañ wax lu bokkut ak la waxoon waaye xattaat mooy kan mooy koo xam ne moom bi ñuy wax bàyyiwuñ ko xel waxuñu moom itam ñee dañuy wax fee moom ne ñukk lam doon wax moom ne tekk di leen déglu bañ àggal mu dem wax ko waxin wa ko soob te mënoo ko teg loxo ndax fekkee dig bàyyiwuleen woon bàyyiwuleen ko woon xel ba ngeen di wax boolewuleen ko ci woon kee nag da nga doon wax ak moom ci projet bi ci projet liggéey Touba projet bi liggéey Sénégal projet bi l'islam mu dem ca ñeneen wala batil leen ko ba jaral leen takk ab xare dem si ci yow yonent bi nee na ñaar ñooñu kenn du ci dem aljanna bokk yi li tey dem aljanna nag lu mu tuuti tuuti ëpp naa xeet moo tax borom xam-xam yu bare bari juboo ci ne kabaa'ir yi gën a mag ci bakkaar yi te bakaar mooy lu araam loo xam ne ku ko def yàlla def ko ci teg am nattu yàlla nuñ ca la musal rambàcc la bokk ni njaaloo ni tax benn borom xam-xam moom daf ko tënk daf ne ab rambàcc li mën a yàq ci wenn waxtu ab jabar bu xor mun koo yàq ci at ab rambaaj lim mën a yàq ci wenn waxtu képp ab jataay bu gàtt lam ca mën a yàq ab jabar bu xor mun koo yàq ci at dana ci kër kër yi am at te du sotti waaye ab rambaaj mën na koo yàq ci diggante bu gàtt lu mutul waxtu sax moo tax imaamul Xasaali mi nga xam ne damay wax ne sëñ mag bi ku ko def ku muy xol la Sëñ Tuubaa yonent bi rek lay roy waaye imaamul Xasali yow suñu tubaab bàyyi na ko xel imaamul Xasali dafa wax ne képp koo xam ne joxoñ nañ ko ci ne ab rambaaj la mooy kan ku ñëw ci yow ne la diw nee na la nangam ak nangam ci sa ci sa jëmm walla ci sa alal ji wala ci sa pal gi ne la wóor ne moom su fa jógee dem bu gisee ñu la ñu ñu ñu lay fexeel loxoom mën na caa bañ a génn gannaaw fekk na fañ yéenoo say ñëw wax la. na la wóor ne booy jàpp ñu lay fexe ba nangam sotti soo ko weesoo it doo gis koo mën a jàpp ku wér ndax gis teg nga ci bët ñëw na wax ak yow ci nang ci ñoom moo tax ñi nga xam ne dañoo am kàddu mën a dogal war nañuy seet bu baax ñii ñëw ci ñoom te te di aw nit moo xam muy ab projet moo xam projet mooy ab sembu wala nañu bàyyi xel bu baax ñañ cay waxal door koo yëkkati ak ñay ñëw di leen wax fa liggéey ba toll ak la ca nit ñuy wax ci mbedd bi léeg-léeg ñu ñëw na la nit ñi ñëpp ne nañ tubaarkàl la te fekk kenn ni wut tubaarkàl te seen ñàkk wax tubaarkàl la ja lañ ci jublu mooy mu gën a baax lañ cay wax mooy nu mu gën a baaxee su ko defee woon nii su ko defee woon naa waaye moom su ñëwee nag danaan yii gaa yëpp ne nañ tubaarkàl la mu ne kon naa teg foofu sama tànk bañ koo teg te bu fa tegee tànkam su juumee ñu ne juum mu wëlbati koo ñëw ci nit ñi ne leen ba nii ñu ko waxoon laa ko waxe waaye kooku kenn mënu ko dara benn nopp la te benn nopp da taxe fexe ba jëkk ci rek loolu ñi nga xam ne am nañ kaddu te am baat te ñu bari di ñëw ci ñoom war nañ ko bàyyi xel bu baax ñu tàmbalee ko ci borom kër rek imaamul Xasaali nee na juróom-benn yëf ngi ne yoo xam ne koo xam ci moom ne day rambaaj nañ ci jëfandikoo juróom-benn yi ba mooy lu wax nga bañ koo gëm ndax na maam faasiq lay nekk faasiq mooy ne benn tànkam ci biir diine l'islam benn nga ci faasiq yàlla nee ci alxuraan mooy munaafiq waaye faasiq nag li tax yàlla jël munaafiq dugal ko ci biir faasiq munaafiq ci yoonu faasiq la jël munaafiq mooy koo xam ne ab jullit la li jullit def lay def alxuraan leeral na ci lu joxe alal tàmbalee ñu tàmbali ko xalaat ñu tàmbali ca bu mënta ñàkk a mooy gën a néewle mooy gën néew yéene mooy gën a taayal te ku a taayaloo nag moom benn tànkam daa génn biir diine moom benn ba nekk ca ñi ca des moo fi alquran daan wax ne innal munafiqina humul fasiqun moo tax imaamul xasali ne da koy bañ a gëm bañ a gëm lam lay wax lépp lu ci nekk nga fexe ba ki sa bët wala nga tànn ñoo xam ne seen loxo set la nga laaj leen wax loolu mag ñu njëkk ñu daan nañ ko am mag ñu njëkk ñu am nañu leen daan war ñoo xam ne lañ fa nekkee woon te ñoom weesuwul bëggal leen seen sag nangam du fi amee doo ko fi defe de ak nangam mënoo koo ñàkk def loolu nag bokk yi waras na koo seetaat te dundalaat ko ci kenn ku nekk nga muy àndal mënoo ñàkk def nangam ndax ab saga nga ca sagub diine sagub yoon wi ma nga ca nangam deesu ko fi defee ndax bu ñu ko fi defee sagub diine du ca nekk sagub yoon wu du ca waaye ñëpp dañuy wax ci bi ci ba xam la nit ñay wax ñu ñëw rafetal ko ki ñuy waxal lool ba mu defee ne dara yàquwut te fekk dara jagagut moo tax imaamul sa ne tam na maam faasiq la te faasiq dañuy bañ seedeen ci diine wala lu mu la wax munoo dagg nit wacc waaye lu la wax nga bañ a gëm ñaareel ba loo man ci tare ko ko nga tare ko ko ci lu wér diw deel wax lu sa yoon nekk diw deel wax dee ma wax dëgg dema wax la am ñetteel ba mooy su su tëyee nag nga ne ko bu fa waxeeti te bu ma seet seeti bu ma fekk suma kër ga nekk barab sàngam bu ma fekk sama kër ga nekk barab sàngam waxuma la di dugg ci sama oto ma di la yóbbaale fenn te it fu ma dégg foo ma dégg ma xew la fa it bu ma fa fekk ñeenteel kañ lay wax ca moom it luñ la cay wax lu wax leer rek lu mu dëgër dëgër nga fexee fexe ba bañ a ñoxu ñoxu njort benn yoon moom waaw la war a wax ci moom daal rafetala sa njort ci moom rek moom daal ko andi wax naan yaa ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran mina zanni zanni ismun juróomeel ba mooy nga bañaa dang dang ñu tuuti ci cim xel ba naan nañu ma seetali boobe ba xam loolee ma waxoon dëgg la am ndax demal seetali ma dugg nga ci daayira bi ñuy wax daayiratul jawasis mooy tajassus bu ñu demee di la di seet daa bu ñëwee ne diw ma ma yónni te moo ne buñ ko xamee dutuñu wax kon dem leen xoolal ma ba xam lu nit ñi di wax itam nañ koy moytu bu baax ndax ku koy wax mi ngi dugg ci bunt jawaasiis yi te jawaasiis yi dañuy mujj soppaliku ay ràmbaaj lu ma ta bàyyi xel la nañ ma seetale ba xam nañ ma déglu li ñii déglu gi dañoo war a presque bu ñu demee xamle seen bopp ne diw moomu yéen di ma déglu loo nangam te yaakaar naa ne loolu te gëm naa ne loolu ku ko wax ña doon wax dutuñu wax moo tax raf bañ rafet njort ca lañ lay wax te ka koy wax nga femm ko rafet njort si ñëpp rek mooy saafara si ndax yonent bi nee na ku dem nañ ma xoolal ba xam luy xabar sàngam yaa ngi jéem a wuññi aw rey dañ nëbb buñ ko wax ca kaw nee na ku wuññi aw rey nit ku ku suturaal nit yàlla suturaal ko waaye ku jéem wuñ wuññi sutura si nit yàlla dana wuññi suturaam bu guddeew fan tuuti fu mën a nekk sutura su wuññi ko dana ko fekk yàlla ñu ci yàlla musal waaye juróom-benneel ba mooy ah li ko ab ràmbaajkat di tere naa ko mbedd mi dañuy nga wax naan sax Euh, doxantu bi ngay def léeg-léeg ci biir dëkk bi da nga ci def ndànk ndax dëkk bi lii laa ak ñii ngay bokkal di añ itam daal wax dëgg yàlla comme doon naa fi ñi nga bokkal di añ de wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne fii rek la Tuubaa rek la waaye fañ dëkkande moom ca ca bawoon moom ah alhamdulilah rabbil alamin du ma wax nit ci dara wax na ko ba noppi su ko defee su ëllëgee su ñëwee ka bokk ko moom dana fexe ba woor te woor du lekk bëccëg wala mu fexe ba añ léegi laata ngeen di ñëw wala daal daanaa jëy ndékki lay ba génn ci diggante boobu yàqu te xamut ba xam kooku mu bokkal dugg na ci ñu leen ci yàlla yàlla mën na ko jéggal xamut xamewut na nit mu def lu ñu ay numéro yu daan xam moo tax Seydina moo tax ku ñuy wax Omar Omar bin Abdul Aziz am na waa ñëw ci moom wax la ko neex lépp ci xilaafa gi amirul muminin la woon moom Umar ibn Abdul xilaafa gi nangam xilaafa gi nangam waa région sangam nee nañ nangam waa région sangam nee nañ ah, kat mat ngaa waxal taxawal noppi wax nga li nga doon wax bàyyil ñu seet ñun sa mbir koy seete nag mooy danga naan li nga doon wax lépp dëgg la su fekkee li nga doon wax lépp dëgg la te moom nañ ko bañ a xam ñu dugal la ci daaira bi suñu borom di wax naan hammaasin masha'in binamin su fekkee li nga doon wax du dëgg ñu jàpp ne dugg nga ci daaira bi suñu borom di wax naan in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyan wala nga ne nga ne daal nañ ma jéggal ci duutuma ko dolli mu ne nañu ma déggal duutuma ko dolli yaa amiral mu'minin mu ne ko yàlla jéggal nañ la yàlla na yàlla jéggal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa romb ay armel ne tekk mënut a dem daat ne ñaari bàmmeel yee day ñi ngay mbugal seen borom mbugal mu metti ba mënatuma dégg fii mu nekk sama yaram daw na ba mënatuma dox ñu ne ko lu xew bañ leen bëggal mbugal mel noonu mu ne moo ne day kenn ci ñoom ñaar musta def benn ci kabaa'ir yi ñu tuddee kabaa'ir yu fesi waaye kenn ki da daan def su demee ca wana wa du fonk waajtaay wa war ca wana wa dëgg-dëgg ba saa su nekk mi ngi ànd ak soxla ñaareel ba mooy koo xam ne ci rambaaj la doon dox ñu ne ko lu ciy pexe nag mu daal di fàq ci garab gu tooy xëpp ñaari ñaari bant yu baax felek ko ba mu jekk mu ñëw samp ko ci bàmmeel bu nekk daat ne ndax yàlla bant bii ma dagg ci sama loxo samp ko ci seen bàmmeel yi li fekk muy wow yàlla woyefal seeni seen bugga su bant ba woowee nag yàlla ñu yàlla am na ku ñëw ci borom xam-xam bu ñuy wax sayidna abdullah ibn abbas radiallahu anhu ne ko bëgg nga wax mu yàlla jublu ci waylun li kulli humazatin rek mu ne ko ñooñu ñu mooy ñi dox ci rambaaj di ay bokk di ab diggant mu ne ko xamalatul xatab nag mooy lan mu ne ko soxnas jabari abu lahab la amru ibn hisham rambaaj la daan yëngu ci rambaaj la daan yëngut moo ne tudd googu ko yënt bi tudd wax ci moom ay baat du jëw ko waxoon naa juróom benn yoo xam du jëw mooy lu dal nit ki cib safaan te nga bañ mu dal keneen nga tudd kooko ba mu xam ne ko amoon la ak tudd nit ki foo xam ne nekku fa te la nga ci jublu mooy wax ko lu baax lu mu defoon ba am lu baax loolu du jëw du rambaaj itam la waaye neen xamalatul xatab rambaaj la woon ak fa xaanataahuma daraba allahu masalan lilladina kafaru imraata nuuhin wa imraata luut kaanata taxta abdayni taxta abdayni min ibadina saalihayn fa xaanataahuma mu ne mooy soxna sayidina nuuhin alayhi salaam ak soxna sayidina luutin alayhi salaam soxna Seydina li tax yàlla ne fa xaanataahuma war borom war seeni borom kër fa xaanataahuma ku nekk war borom këram yonent bi sallallahu alayhi wasallam na yàlla jubluwu ci njaaloo guñ daan jaaloo waaye rambaaj guñ daan rambaaje seen borom kër ak nit ñi la ndax soxna Seydina Nuuhin alayhi salaam da daan ci dëkk bi naan buñ ko ne ana sa mu ne ma nga fay dof rek ma nga fay kàngaadoo rek di soo di ko rek ba nit ñi bañ ko ca lool di ko moytu ku taseeg moom jàpp ne ab dof ngay taseel waaye soxna naa Luutin alayhi salaam ba ñu def seen jëf jooyee saa bu gan ñëwee mooy war a dëkk bi ne leen gan am na fa de mel ne fa gan nag mel ni ku ci yoonam nekk moo tax eh, seen xiyaana boobee rambaaj la ko waroom xam-xam yi tudd ma jeexal nag ci ñaari tomb buy gàtt benn bi mooy Seydina Muusa alayhi salaam suñu borom la woon lool ba mooy kenn kuñ mas a xam koo xam ne yàlla mas naa wax ak moom muy dégg ci ci noppam wa kallama allahu musa taklima falamma kallamahu wa kallamahu rabbuhu eh, sidna musa daa gént nekk ci ron aras gis fa waajoo xam ne daal njoowaan ngam toog sidna musa ñeene ca lool dan yàlla kee mooy kan xanaa jege na lool de lu mu def ba nekk fee nekk yàlla ne ko jurul ma di la wax aw turam jurul ma di la wax waaye mën naa laa wax yet yoo xam ne moom su ma la ko waxee ci mbiram da nga xam ne yeyoo na fee mu toog bu jëkk ba mooy lu waaye masa am yéene ko ko yéene na ko ko ñaane kenn dara lu mu am waaye da ko ñaan yàlla mu dolli ko ñaareel ba mooy ku fonkoon ay way juram la ku fonkoon ay way juram la musta warante ak ñoom ci dara ñetteel ba mooy daawut lambaaj kenn nag kenn waaye bu ñu ko sëriñ mag bi teg tegtale teg euh, teqantalale fi wax lépp def ko tënk ci jant bi mu leer nañ wax na ci ne rambaaj jëwa ko bon bon tooke juy rey naa jaan léegi ji yuy waaye da ci indi saafara ko imaamul Xasali ko tënk ci ñaari baat am man namimatu la daa man baxasa فنقلك الحديث عمن حدث بجهة الإفساد وهو أقبح من غيبة كما الشيوخ صرح لكونها تسبب العداوة والبغض بين الناس والشقاوة وهي لدى الأشياخ أشياخ سم تقتل ترياقها الإعراض عنها فاعقلوا tënk ci lu gàtt nee na ku doonoon ab rambaaj bum naagu ne mbiram yàqu na ba noppi ba dara dutu baax ba dugg na ci ñeenent bi doon wax naan wattandiku leen rambaaj ndax ab rambaaj xawma kuy noppalu ci bàmmeelam waaye du doon moom foofu lay tàmbalee coono jëm par sax jëm yomal xiyam dem sawar ku duggul àjjana la jëm Sëriñ nag ne ku ne xam na boppam ba xam mi ngi dox ci loolu wala déet su fekkee tooke ju nekk ci moom la di wëndeelu ni mu koy luggee jërul dem ci penc ma ñuy jiin naan ñëw leen waaye naka ko daal di bàyyi fasaas rek su boobaa dagan ci tàmbali naa wàcc te mag ñi daanañ dalale am xel bu ñuy lugg jaan ba mu yàgg nit ko tusóoli ñu yokk lañ doon def xam nañ ne léegi tey mu dal ko waaye nag bokk yi jikko yooyu nga xam ne mooy rambaaj mooy jëw mi doon waxtaane danañ ñëw ci fenn danañ ñëw ci aaw mooy nit naw ay jëfam ak fenn moom ñu bari xam nañ luy fenn ak déggtal yooyu yëpp lu ci nekk day gàkkal jaamu yàlla gàkk mooy laan tey ku soloon mbubb mu weex tàll ñu paase ko ba mu tàlli ba pili ba mën a rendi gëléem ñu fab eau de javel wala asib gis ko ko bu xoolee du gis benn jeexee daan amul solo de waaye bu dee acide la nis tuuti am ay bën-bën yu ndaw su dee ko xay dëgg dutu ko sol day seet day seetu jaamam mu may ko waaye su dee eau de javel la bu dee cuub rafet benn muy rombal bànd rombal mbànd wala muy Euh, palman wala bi nga xam ne rom gën naa far ti rombal band ci bula wala palman bu ñuul suñ ko wisee eau de javel ko ko wisee du ko yàqal aw yoonam dana amul solo waaye su demee ba àgg xam ne gàkk baaxut ci ku xay dëgg te la gis mu am ay gàkk ay tomb tomb yu weex moom itam su dee ko xay dëgg na mu war a xaye dutu ko sol bu ñëwee da koy may ab jaam waaye jikko yooyu ak melokaan yooyu day gàkkal ak jaamu yàlla te jaamu yàlla gu yàlla amatu soxla yàlla jaamu yàlla gu set ci la soxla te it am na ñu ci jàppale nit ñi mooy ñi toog di ko déglu muy wax ba àggal ñu ne ko nga ne mu tàmbaliwaat ah sim loo kéemaan la di mu ne li ma ci wax sax tuuti la ci li xew ñooñu itam ñu ngi tàmbalee gàkkale ni kooka ndax jàngoro jàng leen tàmbalee dund dund ñoom itam suñu moytuwul léegi tey buñ ñu tàmbalee nettali keneen kooka wax keneen kooka wax keneen ñëpp doon ay rambaaj ma jeexal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mas naa yónnee ci Seydina Muusa ne ko xanaa xamut ni ñu ko wër ñu ci ëpp ay rambaaj lañ Seydina Muusa ne ko wan ma leen ma xàmmee leen yàlla ne ko mbaa su ma la ko wanee duma bokk ci ñoom yow kay luñ la wax bu ko gëm rek ni ma ko tuddee léegi rek te koo ko xam ci moom bul ko mayati bët bu weex yàlla na yàlla dafa dëgg ak topp te musal ñu ci dee suñu pas-pas ak suñu diine.